une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer allahu akbar mimma kuntu af'aluhu wa lastu akhsha wa la arju siwa عدواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله كلي له جل في سر وفي علن ولست أسأل خير نافع الله حيا بقول الحمد لله وخاني الدر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فشكر لله الله أكبر من كنت أطلبه ومن أطلب كوني العبد لله الله أكبر من عقلي ومن عملي ومن مقالي فكلي صار لله له الوجود الذي قد زانه خدم مع البقاء وخير الله لله له البرايا له أفعالهم وله ما اختار في أبد فالأمر لله هو الكريم الذي أبقي كرامته وكونه لي مرجو لدى الله فوزي غدا كون لي سرمدا وله امري افوض بالمقدار والله يدي وقلبي له قلا له ابدا ذا خدمة لرسول الله بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب من الله يا رب صل وسلم وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العصمى إلى الله يا رب صل بتسليم على وسري من اكتفيت به في طاعة الله محمدا المختار من مضر بالآل وصحب حزب المالك الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملك لي ما فاح المنا كرما man sëñ Malle jur sama yaay wàllum benn yi yaay faali yaay baay faali sëñ Malle yu jigéen yi ñu jàmbaare lañ baay faali sëñ Malle yu góor yi ñu jàmbaare lañ ay sëtam ñoo ko organisé def ko nii di ñaanal nag ki nga xam ne moo fi toogal sëñ Malle di sëñ ma yaa sëñ Seck mu yàgg fi lool te ànd ko wér ndax lépp mooma ndax mooy sunu kilifa ñun ñëpp muy góor di jigéen di mag di ndaw sëñ Mayacine Seck mooy kilifa gi ñu di ko ñaanal ab taxawaayam yàgg lool ñun ñii na nga xam ne ñooy sëti Màlle muy góor ak jigéen sunu borom def nañu soppante wóoloonte bëggante ba lépp luñ de nañ ko daan loolu yi nañ koy sant sëñ Màlle ndax lépp mooma ndax liggéey ba mu liggéeyal Seexul Xadiim muy liggéey bu sell ci la lii lépp waaw ndax daanaka samay sëddee danañ taxaw te lépp li mu waxoon lépp ñun teg nañ ci suñuy bët ñun ñi di sëtam man nag moo jur sama yaay waaw ñun ñii fi nekk ñëpp ay bokk lañ benn jàmbur ñu nekk fi waaw. waaw waaw. liñ préparé moom daanaka lu ci bari ñun ñëpp gisandoo nañ ko ndékki yu tubaar kàlla añ yu kàlla téere yi tubaarkàlla waaye nag li ci ëpp solo mooy bennoo gi ak bokk gi ak ànd gi ak ñu ñëpp ñu doon benn mooy li ci ëpp solo ndax bu bari bernde yi bari woon lépp ne gaañ yi te maanaam ànd bi amut it du mel na mu war mel bokk gi daal bëggante gi bëggante mooy li am solo te yàlla defal nañu ko ak barkeb sëñ Malle waaw waa di tàggatoo rek di ñaan ñu teewe ko naga ni déwén te luñ ci am ren bu déwén ñu am lu ko ëpp dañ bokk ko te kenn bañ a màkki ci barke sëñ Malle waa kay jërëjëf. maa ngi tudd Moustapha Seck Mawa euh, di sët si Serigne Mayacine Seck mi nga xam ne tey jii euh, ñun ñëpp di ay sëtam di ak njabootam mu jiite tey Taïba Cekkeen di xalif ba tey Taïba yëpp di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram tey mu dajale ñu fii ñun ci bis boo xam ne mi ngi koy. màggal di ci santale boroomam waajuram di Serigne Malle Seck mi nga xam ne def na ak Serigne bu mag bi juróom-ñaari at liggéeyal ko liggéey bu am solo ba mu fay dem dem fa bisub altine biñ koy wàccee muy bisub altine altine jooju tey bu dëppook tey jii moom la ñuy màggalal góor gu tedd googu àndoon ak Seexul Xadim Euh, tey ñuy ñëw daal di fekk ci màggal gi waaye fi waañ bi mu nekk ay préparation yu am ne def ngeen ko ci euh, léegi muy ay ndekki yu am li nga xam ne mooy euh, añ bi bëggoon xam li nga xam ne préparé ngeen ko li nga xam ne mooy loolu dañ ciy sant daayira bi jiital ci ki nga xam ne nag mooy kilifa gi muy Serigne Mayacine Seck ndax bis bi da koo yemalewut ak benn bis ndax ngërëm lu ci waajuram amoon. mu di ko ko santale tey cant nag ku ne xam na ne berne da cee bokk ndax joxe aw ñam bari na foo ko suñu borom di wax ci alxuraan naan ab julit dafa war a joxe aw ñam jàppale loola lu am am solo la kon tey bu ñu defee lii rek yoonu murit daanaka mën naa ne li ci ëpp mooy li ëpp ci lu ñuy def mooy mooy joxe ay ñam ak i berne ku ne xamee leen ko muy lu ama am solo kon tey ji Serigne Mayacine bu defee lii dafa delloo buum ga ca boy boy ka donc bi ñu xëyee defar nañ fi ay ndékki yu am solo muy ay xéewal yoo xam ne donc euh, mañ mën naa njëkke ci ay laaxu bisaab yi ñu fi def jox nit ñi bañ paree ñu defaat fi ay salaat yoo xam ne ndawal gi macha allah parce que euh, ndawal gi bari woon na lool wax dëgg yàlla ñu ñu séddale tey jii ñi ngi waajal añ bi mais amul kenn koo xam ne yàkkamte nga sax ne yaa ngi soñ soññi añ bi ndax ndékki yu am solo sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Massamba ñoo ngi ñaan daal comme ni ko kilifa gi ñaane woon euh, dëkk bii ñu ñëw muy sunu lépp ñu ñaan yàlla dimbale nu ci bañ yàgg koo teewe ay déwén déwén mais taw feex la moom. kon kàddu gu mujj bi lan lay doon waaye waaye na nañu xam ñi nga xam ne ñoom ngeen àndal ci li nga xam ne mooy waaj bi ñan lañ gannaaw loolee ñu taataan kàddu yi nga xam Sëriñ Male am nay sët mais dafa am ay am na ay ay ay soppe boo xoolee li fi daje mën naa ne soppe yi ci ëpp sët yi ndax lu mu liggéeyal borom la boromam la ndax ñi fi ñëw ñëpp dañuy xencu jëfam ju baax dañuy xencu taxawaayam bu rafet ak ak sëriñ bi loola moom na ci sa xel dal donc mbokk yëpp dajaloowaat tey ñëw ko mboolem koo xam ne surtout maam waar nga nga xam ne yow ak sëñ maan la yéen a bokk tey jii teew nga fi gis nañ mboolem ko askanoo ci tey ba cekkeen tey teew nga fi ñuy sant nag sëriñ Seex Awa Touba tey parce que lu ñu am Serigne Touba rek man naa ne moom la muy suñu tër tey jii dagg dagg yitteem ñëw ñu bokk menn maam muy Serigne Malle ku fekk bi muy jël bi muy bi sëñ Mayacine di wax ndeysaan da nga xam ni kii cofeel gi mu am ci sunu maam kenn la kon boog ñoo ngi koy ñaanal moom it yàlla yàggal ko fi di ñaanal ñëpp ñu yàgg koo teewe ay déwén déwén jërëjëf merci beaucoup jërëjëf. maam Malle sunu maam moo demoon gànnaar fekk sëñ Touba. ba mu demee gànnaar di liggéeyal sëñ Touba di ko turba yi ba gërëm ko mu jël mayaande sama maam man jëkkati loxo male te ki loxo mayaande ne ko yomal xëyaam mayaande mi laa la laaj kon su ma waxee fii ci lu baax war naa koo wax ndax maam ma yaasa lu am du sans mérite la maam Seex Sekk lu mu am du sans mérite la maam Naar Gàdd lu mu am du sans mérite la maam Afe lu am du sans mérite la Sekk lu am du sans mérite la ma ne Alaaji Cerno Sekk Kaang Sekk lu mu am du sans mérite la yéen yene bete bete ci waaye astu mi sama sama yaay ji macha allah liggéeyu ndey doom sa yaay ci la sekk moo def ba mbaax kon yaakaar naa lépp day rafet tey maa ngi ñaan ci baaxu yàlla ak magu yonent bi sëñ Touba yéen waa Cekkeen yal na ngeen barkeel munu maa wax nag te xaw ma lu may wax waaye sant naa ñaan naa yal na ngeen sut dugub suuna. waa ñun nag ñooy yaay faal yi sëñ waaw soxla moom Seck moo ñu ak maaw ci la waaw ñun moom màggal gi buñ màggalu déwén fi mu ne ñu ngi koy waajal fi mu ne nii commencé nañ koo waajal màggalu déwén ñoom bisu màggal gi rek dañuy commencé waata waajal màggal déwén waaw yaay Fall daal xam naa ne moom jàmbaar lañ lool ci màggal gi waaw xanaa di kontaan lool ci màggal gi waaw wax dëgg fa yàlla am kontaan nañ ci lool màggal gi daal moom ñi ngi sant rek bu baax waaw ñi ngi sant ci màggal gi jërëjëf TV de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer